xibaaru desee neex ñeel gayndey mondial beach soccer bi ak jongante yi ñu tàmbali woon ba yegg demi-finale lépp lu ñu fa firnde nag si xarañte ak njàmbaxte lu sa ëpp féete na boor li ko waral di ñett ña nar wàññeeku si ñoom bés ba ñu nar a janook Japon Alseyni Ndiaye Mamour Diagne ak Mamadou sila du ñu leen a gis ca boobule po gannaaw carton jaune ya ñu tegle di ko am ba mu gàllankoor leen gardien de but bi di capitaine gaynde yi duñu ko dañu ko njëkkoon a femu ca jongante ba doxoon digganteem ak Uruguay bi ko boole woon itam ak Brésil sa gi ñu génn moo waral toogaayam moom ak ñaari njege ñaaleem yi nongo yi ngaala si laaya dañoo rek fas yéene jongante limbu sa ñett ñi di wàññeeku